Cobra laa Cobra bu ma ko sama maam di tuddee gone laa nii naa daan def dama daan xëy ay nijaay di dóor ba ngoon du ma ko yëg ay tànt di dóor ba ngoon du ma ko yëg dama daan yëg ci kaw garabu guy ñu may mujj gi mën a wàcc sàppër di ma wàccee ma daan yéeg ci ay garab kaw garabu gerte tubaab di wàccaat boo gisee ma ñëw ci tiktok bii am yar am teggil di kaf lu waay wax ma rey maa xam ne internet mbedd la waaye kenn gënumaa réew kenn gënumaa ñàkk kersa kenn gënumaa ñàkk teggin kenn gënumaa xamadi lu waay di am pour réew rekk am naa lu ko ëpp pour mën a réew waaye loolu du sama devise li ma fëlee ci tiktok bi lan la Mamy Cobra Vezin quarante mille francs laa koy jaayee avant boobu Mamy Cobra fan na nekkoon ci palaasam di liggéey yor ay salon muy dox macha allah boobu internet xewul tiktok xewul dara xew man nañ ci sama liggéey nañ ci sama yoon mu set wicc ma yor sama xaalis tarkal la macha allah yàlla di ma dimbali yàlla di ma taral may dawal ci oto yi di takk ci caq yi di tawax ci kër yi su ma jëndee tey or suba ma jënd ciment bu gannaaw subaa ma jënd leneen am jom nangoo liggéey boobu TikTok xewul dara xewul ma baax pànkoon naa nag mais pànk tànkatoo ñoo ma du feeñ mais damaa ruus ma wax leen ko ma ñàkk leen ko wax damaa ruus <coughs> ndax TikTok damaa yàq yaay Baba Ndiaye TikTok damaa détruire TikTok damaa tojal TikTok damaa yàq ba àddina bi xam ne TikTok dangaa daal daa yàq rax Cobra TikTok am na ñu mu defar waaye man damaa yàq man te man yàqu waruma man yaay ju baax laa am man yaay ju yiw laa am man yaay ju yaay ju dal yaay ju réglé man yenn nii waruma man ma nit ku ñu war a tiim di ko yedd téeméeri nit tiim la di la wax man du yooyu nit damaa juum bëgg a yàq sama palax bëgg a yàq sama àddina bëgg a yàq sama way bëgg doon bordel normal te yow ba nga nekkee bordel danga ko daan nëbb sax au ndax sa bordel sa bordeltisme bu la nit tooñee nga duur ko bu mu tëdd ak fu mu munti ne nga yëg ci motaar yi di ko wër ci digg Cees wala ci digg fu mu munti doon nga doon pangalang macha allah ne ci sa yoon am fulla am fayda man kaf man ree ma dugg tiktok rek moo saa baalee kuy ma changé complètement changé ba sama yaay tiit te jóg may sa sama nawle nga yaay nga la nag ma baal àq metti na neexul ndax yow yaay xamoo lii lii sa doom ju jigéen ji teg xamoo ko yow yaay faaris nga yow jàmbaar nga yow aboo doom caqam aboo doom yëreem aboo doom dàllam yow doom dëkkalu la doom dundalu la yow jàmbaaru démb nga yaay yaay man sa doom waruma laa teg dara lu la naqari baa ma ne ci tiktok bii di def dara lu la nit di xeebe yaay jóobu jubbaa jóob nga yar ma fan ma war a yare tii ma tette ma yaay ma sonal la ci lu ne ndax man ba ma juddoo jaanama jigadi damaa meloon ni jaan kenn xamul lu may dugg sonal sama yaay wit mu uuf roggante yaay man su ma màggee waruñ ma waruñoo wax loo xam ne boo ko déggee sax sa xol di naqari waruñu toox ñoo xam ne sax boo ko déggee mu ngay am lu la naqari yaay ndax yaay dangaa root boot nàmpal rogganti jóob ngay jàmbaar yaay yaay ngay jàmbaar ngay faaris yaay ngay liggéeykat kër gu mag ga metti woon na kenn fekk ñu fa man ak yow rek ñu doon gaynde faris jaayante ko ñafe ko ba teraanga ñëwaat ba alal dikkaat waaye yaay man mii sa doom maa juum ndax lan àddina waaye man mii sa doom maay defarwaat ba nga bëgg ndax du ma la teg gàcce du ma law teg lu la nit di xeebe du la teg loo xam ne tey jii boo génnee ñu ne cam doomu diw Merci beaucoup. Merci. ne cam doomu diw yar nga ma fi ma war a yare boot ma rogganti ma nampal ma mosoo maa joxe yaay man xaw ma vacances man yow laa xam ay at maak yow yaay dénkaane woo ma yaay joxe woo ma yaay saraxe woo ma yaay tayle ma yaay boo tukkee ba mu yàggati sax danga ñibbi ñibbisi ndax man nii sa taaw yaay lekkoo naanu barki alxuraanu karim yaay lekkoo naanu loo am man loo am man foo jëm man yaay sama benn rakk sonalu la sama rakk yi kenn sonalu la ci kenn kenn kenn ndax ku ne yaa nga toog sori ko te liggéey di jàng ngay jàng ngay jàng ngay liggéey waaye dafa fekk yaay siiw yoo xam nga ne sax sa doom ji yàllaa koy def ci jaam yàllaay def siiw ci jaam nga ñëw rek siiw man nag fi ma sante yàlla mooy ba nga ne ma démb nga ne ma mami ma ne la naam nga ma ne nga ne ma fi ak yaa ngi siiw dégg goo dara xanaa yow yaay bàyyi waaye képp ko siiw gisoo kenn ku nekk ku siiw ku ne ci jàmm ma la yaay booy bu fekkee ma siiw man mooy tax doo nekk ci jàmm kon yaay man damay bàyyi barke Seydina Muhammad ndax yow yaay lu ma am yaama ku gënan jóoba jubba yaay bu ñu xasee say mbokk maa tax bu ñu sosalee sa papa maa tax du sosal sama maam man nii maa tax yaay nga na nag ma baal àq nag ma baal ba muy juróom-ñaari yoon man sa taaw bi tey nga la nag ma jéggal te yàlla rek tax ak àq njureel weer wii li nga déggu yàlla nga dund ba ma la koy fay ci barke ak ci alal ak ci lépp dara la yaay bëgg a kontaan ndax yaay ko sonn ci man nga yow yaay waroo stressé yow yaay waroo tiit yow yaay waroo toog sax nit di xalaat dara wala ñu naan ah nañ xaar tey leneen mën naa amaat yow yow yaay yow waroo doon yow yaay ndax yow yaay jàmbaar nga yaay lu ne nga daj lu ne ndax man lu ne nga daj ndax man lu ne ci àddina man bu fekkee ma siiw nii lay siiwee yaay man damay bàyyi barki allah ji fàllu mbàkke bu dee nii laay siiwee man damay bàyyi amul werante sax nag ndax yow yaay faaris nga yow doo yaay ju ñuy teg gàcce yow doo yaay ju ñuy teg naqar yow doo yaay ju ñuy teg stress li musul am sama àddina guléet weer wii la ay noon jug rek bëgg maa gasal ay noon jug rek bëgg maa fàqatal ay noon jug rek bëgg maa kàmbal jéem nañ nag lu ne yaay waaye mënuñu ma dara su ma tiitee baa may xalaat yow la waaye man xam nga ni yaay sa doom ji man du dara ci àddina lu ma saf waaye yow dangaa amee nawle te am na ñoo xam ne dañoo bon ñoo soxor buñ la bëggee tuuse ci man lañ koy jaar buñ la bëggee fa xasal ci man lañ koy jaar ndax man maa siiw te xam nga ni sa doom du ragal sa doom ku mu sa jàmmaarloo boo yoree 32 bal say bal danga koy teg ci suuf ndax yow su ma demee ba changé di ree ak a kaf bàyyi xeex yow yaa tax yow yaay ju ñuy teg gàcce maam sama bàyyi ji mu baax lool bëgg ma uuf ma boot ma rogganti ma bàyyi gën ci bàyyi tubaar fakar la mu doon ku baax uuf ma rogganti ma wax ju ñaaw ji ci réew mi heureusement ba mu nekkee sos te ki ko sos tey nelawul ki ko inventé nelawul te ki ko sos inventé ko doon sama géwal daan ñëw ci man mu nekk sama première géwal moom laa njëkk xam ci géwal avant tey ma am ay géwal nii di ma dar kon yaay gàcc ngalaam bu dee kàddu gu sos gu ñaaw gi foofu la jóge ci gémmiñam ñu xëy démb lañu ko sosal tey ñu xëy mu leer nañ ñu ne wax ji fii la jóge ak fii ak fii diw moo ko waxoon ak kii wax ko xale bu góor bi xale bu góor bi wax ko diw mi waaye duñ sant dañuy sant dañuy kontaan sa doom ji ko laal laal laalaake dama ko woyoon ci woyu ngaa ka blende bi kenn gëmuma man ko laal nga laalaake ku ma laal laal nga laalaake man laa du dara nag bàqu ma ndax bàqu jiguma man ndax doomi gor laa waaye laalaake laa bu laal bii laa tuddee sama bopp ak ku doon bu ñu dajee dangay wax faram daal di jébbalu amul werante ak foo mënti ne ak koo mënti doon na sa doom du ragal waaye tey maa taxaw ci devant public sénégalais yaay baalu la àq man sa taaw bu jigéen bi ma sawu man sa taaw bu jigéen bii àq ñu dafa diis te dafa metti ba ma toogee dangaa reetaan ne waa kon fii lañ mujj man maa ngi doon xalaat sax nga am ay souci walla wax nga reetaan ne saan man mi tuq nañ la fu ne xamuñu luñ la waxal ñu diim la sa baay sant yàlla ay mam mi tey jii buñ la xamuloon leneen dañ koy wax baa ñu génnee ko nekk te yow sax yaa ma njëkk yëg ki wax wax ci ak wax ci fu mu jóge te kooku teraanga gune defal naa ko ko yaay yaay gis àddina te tey bu ma waxoon àddina tas waaye nanu baale yaay ñoo tollu nii ndax jéegu meer bu nuul bi nettali ko jéeg bu ñuul bi jéeg bu ñuul bi nettali ko xale bu góor bi xale bu góor bi nettali ko jéeg bu xees bi te lépp du doon ay sos sant yàlla sos yooyu pour koo xam ne dangay bëgg sëfa mu jox la sëfa nga bëgg jesneer mu jox la jesneer buñ la woowee di la enquête ci kooku waxal li nga ko xamal nga ne ko sosal ko waxal nangam loo rafetul ba pare ni miix ne pat ñaaw na ay waay àddina du kër lu waay def feeñ barki xam Muhammad àddina lu waay def feeñ koo wóolu am na ko mu wóolu am na ku mu sama xol bi naqari na nag su ma ne sama xol neex na wala ma toog fii dereetaan damay fen sama xol dafa naqari xam nga sama xol naqari guerre nag taxul sama xol naqari ndax dama kontaanoon mais tey di tas sama xol naqari tey dama jooy ba tëdd tey dama jooy ba feebar ndax gor laa gor sànq ba tey maa ngi gis ngeen di bind ngeen di bind cybercriminel demoon naa wuy ji ca fajar ca fajar waaye ba ma demee gàcce laa am aw ma bànneex man ku mën a dem foofu toog rey man dama lay tiital ndax man ci risque ci la ñu ne ñun ay nit a ci jàpp mais barke Seydina Muhammad dañu doon defeere trois mois boo koŋ te ba tey bàyyeeguñu suba dañuy demaat ku ree xamoo ku tiitoo man tiituma de dama jommi dama waaru dama rus barke alxuraan ndax yoon dafa sew ah? te dañoo dem ba nekk te ñu nekk ci réew mi lëmbi ko moom ko ñu nekk di wax waxi ñaaw barke Seydina Mohamed senegal yi ku toog man ku tiitul man jàllu tiit naa duma toog fii di fen ak duula carré duma ko def dama leen di wax dëgg ndax yéen ñu man ngeen di topp ngeen bëgg ma duma toog fii di leen jeter fleur wala di leen fen wala di reetante su ma coupé jooy wala ma su ma tëddee du ma nalaw ma ko def barki alxuraanu karim suba suba suba suba mën nañ leen ne woo na leen nañ diw ak diw ak diw billaax wallaax wa taalaax na ci yàlla def ndox bu sedd kuy ñaan ñaanal yàlla def ci ndox bu sedd guy kuy ñaan ñaanal yàlla yàlla def ci ndox bu sedd guy sax dafa sew nag may ñu ma ma toog di live di wax may ñu ko may ñu ma ko man moo tax mënuma toog indi benn détail waaye dama ruus te dossier bii dama xamal waa internet bi internet dina changé bu baax internet toog tàpp say pooj sax di def nii amatu fi ma xamal leen loolu képp kuy jaaykat képp kuy jaaykat toog sax wala sa yaram di feeñ barka walla ngay wax sax di def comme yii may def nii amatu fi barke alquraanu karim billaax wallaax wa taalaaxi dama ñëw pour wax leen dama ñëw pour nettali leen lii dëgg te man waruma sax wax ndax ba tey dañoo nekk ci source waaw dañoo jàpp politique bi politique bi am suñu coow li doon doon doon l'international dangay damaa toog coow ay vingt-huit cas vingt-neuf cas trente cas ba TikTok di ko signaler Sénégal ni diw live na am nombre de cas bi prise bi toog ak fii ñu jógee nekkatul ay caaxaan nekkatul ay mbili mbili màcc man reetaanu damaa tiit man jàllu dama tiit xam lu tax ma tiit jigéen laa te euh, liggéey ay waxi ñàkk fayda bëgg nga yàq sa palax yàq sa carrière fi mu nii nii may toogee nii di wax ak yéen jàpp leen ni mun nañ ñoo woo nokk ñu ci grippe bi billay wallay wa taala barke alxuraanu karim laa leen waatal man li ma tiital yombul li ma xokkatal yombul man dara mënumaa jaaxal mais dafa nekk loo xam ne lu diis la dossier bii dafa diis fa mu jóge moo kawe kenn yóbbuwul kenn fenn kenn yóbbuwul kenn fenn chaque jour xuloo am na ku ne xuloo na mosul yegg fii man la hmm. man la dafay mel ni Ukraine ak ak ak ak ak Russie xaw ma nu mu tudd Ukraine ak xaw ma fan Angleterre rek ñëw daal di wàccee bali ñoom ñëpp teg seeni bal te noonu. Hmm. moomatul suñu bopp sax ñun ñi dañu naan defal ñu def bàyyit ñu bàyyi xam nga nag fu ma ko jooyee euh, day mel ni comme si c'était que yow déggaloo sa famille bañ teg la ci axe dafa ñaaw parce que Serigne Fallou Mbacké ko toog real life du nit wala xamoo li xew yow amul xuloo amul ñàkk xuloo amul kii moo tooñ amul kii moo ndax dañoo nekk ci élection élection yi ñëw xuloo bi tax na kenn taratul réew mi kilifa bu dugg suñu saag sama saagay lay daj ak saaga keneen ak keneen wax ju ñaaw keneen ak keneen kilifa gu dugg war a xool wala war a def wala war a dindi saagay ngay daj ñëpp kaas ko ñëpp international yeeg milliardaire ci réew mi kaas ko ñaata nit a xuloo ñaata nit ñoo xuloo ñaata ñaata nit mais bii xuloo dafa am bomb boo xam ne kenn xamul mu doon kenn kenn xamul mu doon su ma nekkat kee na ñàpp kii na dëgg tàll tàll ràll ràll tàll tàll ràll ràll te man dama vulgaire man sama xuloo baaxul man dama pànk gis nga boo pànkee du danga koy wax mais day nekk ci yow moo tax dañ lay tooñ nga tooñ ñaar bi man dama pànk te dama vulgaire vulgaire man sama xeex dëgg ñu ko daan fekkee tees dañ daan bërëngu ba duñu tala àtte dañ daan reetaan mu jóge ñuy bërëngu duñu tala àtte barki Serigne Fallou Mbacké ndax vulgarité bi may waxee jigéen la yu bari waruma yu bari waruma te à chaque fois sama yaay tere ma à chaque fois sama yaay na ma bàyyil à chaque fois sama yaay ne ma mami maa ngi gis loo dul gis lii dina yàq sa palax mais man yëngu ma mais bis bu may yëngoo bombu atomique lay doon moo lii ay at yënguuma ay at yënguuma mais bu may yëngoo day mel ni bombu atomie barki Sëriñ Fallu Mbàkke day mel ne tremblement de terre te moo am nii te lu ne mën na cee xew nag sénégalais fañ dem tey lañ wax yoon mayuma sax man pour ma koy wax ak fa affaire yi yoon mayuma sax ba ma koy wax ak na mu demee yoon mayuma sax pour ma di ko wax mais jàpp leen ni muy man muy keneen ci xottu nen nañu toog yàlla nañu yàlla suturaal ak sunu liggéeyu ndey ndax lii dafa am bomb ndax lan Cobra bu ne am na fi rayante bu ne am na fii. dëkk bi bi la lu ne am na lu ne lu ne xew na fii mais lii musul xew musul am te man kenn xamee ma vulgarité TikTok ak nu mu mënti mel sama jikko nëbb naa ko TikTok TikTok reetaan rek laa fi daan def moo tax wax nañ ko sax heureusement musuma am ak kenn xaar ma yàlla TikTok amut loolu dimbali na ma. xam nañ ni ki dul tooñ ak ki du ak ki bëriwul histoire bis bu histoire histoire ba day fay day fay ndax du ma histoire duma ma tooñ du ma gaaruwaale du ma waaye dama vulgaire dama mën dama mën bis dama mën xuloo te loolu waruma sa yaay am gàcce say mbokk sonn ku ne di la yedd ku ne di la xas ku ne di la wax wax loo xam ne war la ko wax ku la war a xas-xas la ku la war a war yàpp yàpp la ku la warut a yàpp yàpp la pour lan mën na ci réew mi jàpp ko ñapp tapp ñapp tapp ñapp tapp guddul jeex damay ruus buñ ko génnee sax ruus damaa damay ruus surtout maa ñi koy génnee ñooñu yow doo bëgg doo ko bëgg a xool ndax yow mënoo xool loolu di leen xool yow mënta ne mais boobu tooñ nañ na laal nañ sa xol sës nañ la ci miir wis bi daw nga ay ati ati at daw ay weer weer ñu sës la rek jaay la kënsal te yow ngay gaynde gu mag goo xam ne tey ji bu tremblement de terre amoon boo niveau barke allah ji Fallu Mbàkke suuf du xar rek asamaan sax fa la jaaree reprise mais dangay dawa dawa dawa dawa dawa daw ba sonn ndax lii laa xamoon ba may daw ragaluma woon de nekkuma woon tapet ñu dëkk Thiès waxuma nag ñi mu boone Thiès lañ dëkk déedéet ndax fu mu toll nii bëgg a dëkk Thiès ñëpp. boobu ñëpp ñu fa bëgg a dëkk fi nii guddi ñu toll nii da gis ko wax lu rëy ne fi mu toll ñëpp a ngi bëgg a dëkk Thiès. sama rayante du ndaw xaw ma ko sax. gu mag sax buñ daan xeex sama barki démb démb rek sama maam wax na ko nee kii du nit boobu daw naa ko sonn ñu ma rek ma dégg daa tàppet ma ne pat ma dégg daa ragal ma ne pat ma dégg daa ñàkk fayda ma ne pat ma daw rek ma daw rek ndax boobu yii laa doon bañ yii laa doon bañ sama wax suma ubbeeku may raw tremblement de terre te mi ngi nii am na lu ne mën na cee xew lu ne mën na cee xew lu ne mën na cee am ndax du ñun ndax bu du ñun la kii danaan papa kii naan sa yaay kii bu ne sa yaay kii ne sa maam kii ne sa maam kii ne sa tàntaal loolu yoon am fa yoon mais du ñun dafa mu jugee am doole barke alxuraanu karim fa mu jugee mu am doole ay nit ci nekk nii sax nii ma lay waxee yéen nii barki alquraanu karim am na ay kilifa yu mag yu ci nekk nii di maslaa ndax suñu jom moo tax ñu yërëm ñu suñu fulla moo tax ñu yërëm ñu mais dañoo juum dañoo yàq suñu palax te xale yi dañuy seetaan mag ñi dañuy seetaan ku ne dañuy seetaan te réputation bi day yàqu suñu toon yi man damay wax sama bos lu koy defaraat man lu koy defaraat ba xam naa ne moom fi mu toll nii moom fi mu toll nii nii nii toogaay ful la rek laa toogee réew ma kafuma bu may réer di daj sama xale sama sama fan si di jëndeeg man laay taal sama laay fekk di eh, wax sax gëdd nit mayatuñ ko ku mënti doon nga am tur lu toll ci kaw di la seetaan mais fii ak ay 400 sax man wala waxuñu ko. ni fii ñu toll nii nii nii nii tembe tembe nii tembe tembe nii. saaga sax saaga mayatuñ ko nit ci écran ku ko def ñu jëli la ku am lu la naqari am nga foo dem ñoom boo demee fi mu toll nii man ak keneen jël nañu en charge pour ku ñu mënta attaqué ak ku mënta taf sa dara ak lu bëgg waaye yow mayatuñ la nga toog sax naan nii comme yii may def nii wala toog nii wala toog naan nii sax nii wala naan nii sax nii barki alxuraanu karim laa leen waatal mayetuñ ko kenn mayetuñ ko kenn te ràll ràll tëll tëll gi ndaa gi gi ma daan def man te heure la léegi heure heure nii man mosuma gis historique bi tañ lu taŋelenge la teg ci taabal bi lu ma fa jëlee nag duma ko wax lañ ma wax nag duma ko wax na mu mel nag duma ko wax ndax xam nga lu tax yoon mayu ma ko yoon mayu ma ko fi nii lii mooy rawaas original ku sa ndey yarul sa baay yarul la nit ñi ci réew mi loolu laa gis ku sa ndey yaroon sa baay yaroon yàq la di nga yaruwaat lii laa gis man nañ ko baax ku sa ndey tere nga të ñoom appel lan lay def nga xam niñ la wax. parce que allah ci fàllu Mbàkke laa leen waatal. historique gi ci eh pare gu ma des na waa Europe déggoo li ma la wax yoon mayu ma man ma wax yoon mayu ma def ma dindi te yoon mayatuma man may wax sax naan nii ak yii comme yooyu ne nañ man geste bii may def bii ak nii ak naan nii ak naan nii di si gis lii man. mosuma ko gis parce que alxuraan strict changement normal ndax nee nañ ñun lañuy yàq image yu Sénégal image yu Sénégal lañu yàq ndax beneen dëkk bu seetaanee day jàpp ni lii moo am Sénégal day jàpp ni Sénégal jigéen yëpp nii la ñu mel jàpp Sénégal jigéen yëpp nii la ñuy dundee day jàpp Sénégal képp ku mel ni Mamy Cobra kon jigéenu Sénégal moom la mu mel. je suis ma wax leen dëgg même suñ may reetaan wala di ma xas dama leen wax dëgg dañoo strict dañuy jàpp ni tey jii su ma génnee wala ma wax wala ma ne nii dañuy jàpp ne lépp luy jigéen Sénégal suñuy wax nii lañuy def strict normal te ba pare man dafa am sama xarit boo xam ne dafa ma rey ba ma dee dafa ne ma moom foofu da ngay dem ñu xuuxal la wax la nii rek pour ngeen arrêté kooku dof la. daf ma saraxee. am na juum li gis tey dégg ko man en tant que Poutine parce que alxuraanu karim man dama yaas am nañ fu ñu may mais am na loo xam ne ñoom ñoo ko moom te day gën a historique impôt sax dinañ ko fay fii maa leen wax lii impôt dinañ ko fay fii dinañ commencé teg ay tax commencé am ay carte yoo xam ne moo lay may pour nga lépp daal la wax déggoo li ma leen wax xanaa mënuma ko wax parce que Seydina Muhammad strict normal laa fi gis te moo ne dangay tekk ak sa yaay mu wax ba sonn mun ko yaay bàyyi ma rek bàyyi ma rek nga nekk sa papa mu wax ba sonn ma ko déedéet papa su ma defee nii rek damay damay juune déedéet nga dem feneen ñu wax la ko danga koy def kon léegi pourquoi fëggatu pourquoi reew pourquoi beew mënta ne mënta ne barke alxuraan musuma gis lu mel nii musuma gis lu nar a estrigué ba pare Sénégal nag dina mel nii de ba pare am na foo xam ne xas nañ ñu nag xas nañ ma lan nga apporter sa développement ba élection yi amee lan nga def ba président gagné lan nga def loo benn njëriñ askan wi lu dul kat ñapp dëgg a ah, yee yoo yee yaa ah. lii nga amal njëriñ askan bi man Mamy Cobra Mamy Cobra amal lu ma njëriñ bi benn askan benn njëriñ benn lu ma leen ko lu dul ah ah ah bu ma la daa def nii ne waat nii ah, ah. ku ko seetaan ne jigéenu Sénégal ko ndekete nii lañ mel kon ndekete jigéenu Sénégal nii lañ mel suñu valeur mooy baissé valeuru jigéen ba ah yéen a ngi ree ah, yàlla baax na da ngeen di reetaan da di reetaan yàlla baax na fi mu toll nii moom wax dëgg neex yàlla xam nga ñan ñoo neexle ñu yàgg civilisé toog jaay peusement tëj dem seen yoon waaye ñi daan ambiance fi mu toll nii ambiance dëgg ndax am na yenn yoo xam ne bu ñu ko teree dangay dem ba sa yaram day dem man yenn ñu bëri yi man mënu ma ko man mënu ma wax te du ma def nii wax te du ma nii te lu leer nañ la ñuy wax. lu leer nañ lañ wax lu leer nañ ni Faatiha ak Naas ak Bakari barki alxuraanu karim barki Sëriñ Fallu Mbàkke laa leen waatal lu leer nañ dangay gis koo xam ne day tafata nit duma ma ca wax ndax mayu sa yoon mayu ma ko damaa nekk en attente nii. sursi si liggéeyu nday moo tax tey fanaane jiw ma man ak keneen ak yenn yi ñuy def ci lu baax mais konoon barki Seydina Muhammad bouclage bi ñu def fa kenn talul élection yii dinañ ko fay ba mu ba wis leen te lii ma leen di wax nag nit a ko mën a dégg mais par dof bouclage bii ñu def ba kenn talul sax président bi am Ndiaye indil Diop gi Instagram Facebook Twitter site boo dugg mami Cobra fa ne ah li ma la xamal samaam sa yaay xamal ma ne xamal ma naa. adduna bi yëpp seetaan mami Cobra ba taluñu président bi toog. adduna bi yëpp jop visite ci mami Cobra ba président bi liñ ko war a honoré ci TikTok bi mën ko koo defee ci TikTok bi mënu ko am mais loolu neexul. neexul neexul ba pare li ma gën a naqari dangay gis kilifa buy dugg pour xool barki Seydina Mohamed yéen a ngi ree yéen a ngi ree sama musiba man xam naa leen li ma a ngi ree sama musiba. waaw doo tàggoo nag mënu ma koo tàggoo kii dina ma ko may tuuti. dina ma ko yaa ngi dégg dangay gis. Ah. kilifa bu bëgg a dugg TikTok. liir tay lan la lan moo xew ubbi rek. yam ci ma mi comprendre naan ko sali sala sa bi ba pare man dama bëgg waxu bii ay yàlla sunu borom am naa ko siira li ma sama yaay naan ma quel est ton a avec ce verbe ma ne ko la verbe la mu ne ma boobu sama copain bi ma yow what ak verbe nangam mu sa wax ji nangam nangam nangam nangam rek yow li lan la man ko nii laa mel damaa vulgaire baal ma li may wax mu rëy toll ne dara barke Serigne Touba Mbacke yow kon fii dafa amul fi. yow lii wifi bi la. bee mooy ñëw. kilifa bi bu wóorul bu duggee. TikTok war a xool actualité bi xew ci politique bi barke Serigne Touba Mbacke du ko mën a seetaan ci jàmm. day dugg rek jàpp ci mënu ko moom ko war a naan laay la xaaral laa la bal bu dem ñëw. daal dem seetaanaat keneen keneen keneen moom réew ba pare ay vingt sept mille personne di la seetaan ay trente mille personnes di la seetaan. à nga naan ral ral ral ral ral mel na bool bu bees léegi nag keneen ku nekk Europe étranger wala dara xool jigéenu sénégalais yi xool wala TikTok jàngat Sénégal xool ñu fo ëpp vie xool seen façon de démonstration day xeeb yi nee nañ day xeebu day xeebu dëkk. la ilaha illallah stratégie bii ma gis Sénégal lii ma gis Sénégal man man ko braax yéen a ngi ree man maa ngi jooy yéen a taral ree mais barke Serigne ba Mbakke man maa ngi jooy te ba tey nelaw ma te dama tiit te xam naa li tax ma tiit man yàlla ci yàlla def xéewal yàlla ci yàlla def barke sunu liggéey yu nda nañu wàllu ndax ay xale lañ liggéey dafa fekk ni nag man nag dama nekk koo xam ne maa raw tremblement de terre noonu laa mel bu ma yëngoo laa sama yëngu baaxul sama yëngu fii lay mujj fii fii lay mujj sama yëngu ñaata nit a xuloo moo tax suma bëttee ñëpp naan ma dëmm bi sama estati laa ci def ku ne di ma estati ci kum dëmm dëmm bi lii mosu fee am laa laa xel laa kobra ñii naan ma yaa gañe ñii naan ma yaa lii ñii naan man dama tëyit barki sëy di dafi mosa am mosu fee am mosu fee am léegi da ngay gis japonais boo xam ne day xool tiktok Gana lan mooy actualité TikTok dugg TikTok fekk fa Mamy Cobra kanamu Mamy Cobra ba bëñu Mamy Cobra ya comme tànku taabal Mamy Cobra di wax ay balaay la xay la laa ay lama la xamal sa yaay sa papa sa bajjan sa tanta mu ne mu daal di jàll dem ci keneen yaakaan dina gis keneen ku gën Mamy Cobra war ko tane mu duggati foofu xam day xam parce Sëriñ Fallu Mbàkke suñ toll nii ku ci sa ndey yarul woon nga yaru ku ci sa ndey daan tere ngay bañ ngay dégg yow dafa am nag mu ko wax ndax yoon mayu ma ko yoon mayu ma wax moom toog naan lii ak lii ak lii déedéet ndax su ma leen nettali woon yéen ñëppay jooy yéen ñëppay jooy ak Seydina Muhammad yéen ñi reetaan yéen ñëppay jooy dama nitu kersa la maa bëri kersa bu pare aar ñëwu nag hee aar ñëwu fi mu nii ay kilifaat ci teg tànk nii di ñaan mi ngi mel ne tey jii ki war a yor réew mi sax kenn xamul mën naa dugg ci réseau yi gis lii moom mi toog ci jal bi sax kenn talu ko day mer kenn xamul. moo de fu ma mënti nekk ak foo ak fu nekk ak koo mën a doon man Mamy Cobra maa ngi lay baalu ak devant tout le public et le peuple un peuple un but un foi maa ngi lay baalu ak devant treize millions habitants vingt sept cas et cas de discussion namaste <laughs> ngi lay baalu nañ nag suba dinañ demaat ñaan leen ku tiitul tiit naa de ñaan leen yàlla def ci ndox bu sedd guy yàlla def ci ndox bu sedd guy ndax ñun danoo reew da gis ku wóor ba dëgg koor deux heures ñu toj sa koor fu ñu ko teg ci kat ak ñàpp ak dëgg ah maa ngi koy waxati de hmm. <laughs> lu maa rëcc fi mu moo tax laay fii deux jours laay toog jàngat sama bopp ba pare bu ko laay fàtt mayuñu la sax duul mayuñu la ko léegi fii image ndax dañ ne image mi ngi mel ni nga semeeku ba sa jàkkaarloo public bi mhm. waa léegi war ngaa jàkkaarloo public bi di wax ay bal ngaa jàkkaarloo public bi di saaga di def di dindi man tamit daal vraiment euh, seytaane ak a garaaw da lay def yow yoo xam ne yow boo pare da ngay xeeb sa bopp am na vidéo boo xam ne damaa pare xool ko ak sama gémmiñ gi ni ci mel may jooy xàcc man guerre bi jaaxaluma ne ndax man guerroo guerre jaaxaluma ndax guerroo guerre guerre naa ko lu ma dégg lu ma dégg woon dégg naa lu li ma dégg ci réew mi lu tuuti la li ma dégg lépp samay nit sosol ma ko lépp samay xarit ak am di jàmm sosol ma ko lépp kon fi dégguma dara fii duubul fay rek laa dégg dama daan dégg ay bibliothèque fa ma daan dëkk ci ay sos barki borom Tuubaa mais damaa mën a xuloo mën a xuloo mën a histoire sama histoire moo sadik dafa salte dafa ñaaw sama histoire dafa am doole dafa am doole ba ma xam ko man ñaata nit a xuloo TikTok ñaata nit a dagg sante TikTok ba pare sama xarit bi mer naa ko mu naan ma moo demal rek soo demee lii ak laag lee barke ma daal di dem toog mais ah xaaral ma dem rek ma pare damay toog ma dem presque une heure de temps recevoir ak lépp mënu ma ko ki ndax mayuñu ma ko dañ ma koo mayu ndax dafa am ko def ñu bëgg a rey seen bopp man mayuñu ma ko barke alxuraanu karim fi mu toll nii booy live da ngay sol lu correct lu Sénégalais yi mën a seetaan wala nga def lu correct lu Sénégalais yi mën a seetaan